bëggoon interpeller rek monsieur le maire Pape Gorgui Ndong ndax Pape Gorgui Ndong dafa war a fàttaliku ni jigéen ñi ñoo ko far mais un maire bu fekkee da nga bëgg deuxième mandat sa bilan moo lay fal Pape Gorgui Ndong amul lu mu def lu dul wër groupement Pikine yi di leen escroquer man particulièrement am naa ñaari groupement yoo xamante ni ñëw nañu fa laaj leen caution 35000 daal ne dañ leen di wutal financement alors que c'est pas vrai c'est de l'escroquerie kon nag damaa bëgg waa Pikine Ouest bu ñuy fal ñu xam kan la ñuy fal ñu ànd ak Cheikh Diop ndax un maire boo xamante ni du wax dëgg di njuuj njaaj du dugg ci coalition jàmbur fekk jigéen ñi nga xamante ne dañuy daan seen doole dajale seen dërëm ak seen ñaar dërëm mu dajale seen ay caution ne da leen di wutal financement lekk seen xaalis na wax ci loolu yaakaar naa ne premier mandat programme moo ko fal mais pour son deuxième mandat bilan moo koy fal. def maa ngi Sekk voilà pour démarrer gis ngeen ko ah. parce que ñu ngi ñëw def suñu point de presse on est des Pikinois on a droit de faire benn milieu biir Pikine fii mënuñu ko tere du dëgg léegi ñu ngi ñëw ñoom ñu ngi ñëw fii waa PAM Ndong yi waa góor Pape Gorgui ay jigéen yi nga ni mën naa ne amuñu benn jot seen aduna amuñu lu ñuy def ñu ngi fi nekk di tooñ di def naka sudul noonu boobu léegi nag ñun topp ñu leen ci dara parce que comme ni ñu koy waxee on est bien éduqué dañu ànd ak bi nga xam te ni ku ko xam dëgg xam ne dafa dal ci dal la ñuy woo ci dal la ñu yar ci dal la ñuy demee mais nag lépp lu ñu nit woo ba foog ñu yaa ñu koy ëppale rek ni ko olof di waxee léeg-léeg dina baax nga siñ ba ñu xam ne am nga ba ñu mën a maté peut-être da ngaa talul maté léegi nag ñun lenn rek lañ bëgg a wax que état Sénégal lañu interpellé ñi nga xamante ni tey ñoom ñooy autorité ñoom ñoo war a jóg ñu lijjanti lii parce que lii fi mu nar a dem yaakaar naa ni seen loxo moo si nar a dugg bien avant mu yegg foofu nag nañ jug ñoom ñu xool nan la ñuy def ñu régler problème bi une bonne fois des Pikinois élection c'est pour quelques jours dafay jeex si jàmm ak salaam du dëgg kon nañu xool nu mu gën a rafetee rek ñu defee ko noonu Mbaye Seck pour dire si lui am na li nga xamante ni ñu ngi koy bëgg a def muy xañ ko àqam ak yelleefam ndax tey dossier am xam nañ ni carrément liñ ci war a def yëpp def na